PDS ak lii di euh, coalition gëm sa bopp ak njiit la di Bougane Gueye Dany nga xam ne daal dinañu tàmbali nag lii di séddoo euh, coono yi di ab campagne boo xam ni euh, taxawal nañ ko nag ngir daal di fekk askan wi fu ñu nekk ci rek réew mi nekk ci jafe-jafe ñu jëm leen cee jénne bokk na ca ñoo xamante ni jot nañ cee daal di bénéficier wu nag di askanu tëmb gay nekk fa fee ca département bu Kébémer seen maternité ak li nga xamante ni moo di salle d'accouchement ba la ñu daal di leen defaral ba mu daal di yemb nekk mbir moo xamante dañ ciy ànd ak Fatmata Diop maternité bu poste de santé bu village bi di Tëbb Mbay daal dinañu ko yeesalaat Tëbb Mbay nekk ci commune bu Kaba Gueye département bu Kébémer lal yi nga xamante ne nag moom lañ defoon ngir hospitalisation yi waaye tam a teg ca ca wet ga seeni ay liir bu ñu amee doom ñoom soxna yooyu matériel la bu xamante ne depuis 1982 lañ ko fa tekk ba tey ni ki tey jii nag mouvement gëm sa bopp seen leader di Bougane Gueye Dany daal di koy yeesalaat ba mu rafet mu mel ni nag bu ñu sukkandikoo ci moom leader bu mouvement gëm sa bopp jàpp na ne nag askan wi nga xamante ne ñoo yeewoo foofee ca village boobee ñoo ko ñoox askan wa nag tey jii seen xool sedd lool ginnaaw ba ñu gisee matériel médical bi ak tamit assistance bi ñu daldi koy renouveler ginnaaw nag ay projet yu bëree bari mu daal di koy lancé woon réaliser ko moom njiital mouvement gëm sa bopp bu gan ngay dani tey jii nag taxawalaat na beneen projet bu mu lancé ngir soulager askan wi nga xamante ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe ci yenn gox goxaan yi nekk fii ci mim wa projet bu mu dubbee séddoo coono yi baax moom Bougane Gueye Dany muy joxe rendez-vous fan yi ñu dëgmal ak yeneen localité yoo xamante ne dañoo nekk ci jafe-jafe. alaaji mu mel ni kon ginnaaw ba ñu falluwoo euh, falluwoo <laughs> taxaw si coonoy askan wi dafa jot sëkk. oui dafa jot doon naa ko wax ci suba ma ne musuma euh, xëy na di joxe sama xalaat lu bëri. Mhm. ci yenn ci ay déplacement yu. Euh, mouvement wala coalition gëm sa bopp doon def. Mhm. ci ay tibb tànk ak ay tiiñal ak yooyu yëpp. Mhm. mais bu fekkee critiqué wu ma ko ah. parce que stratégie politique la ku nekk yaa xam. Mhm. ni ngay doxalee. Mhm. mais bi tudd bokk ak séddoog askan seen coono. ah vraiment je valide à cent pour cent. parce que sénégalais yi dañu sonn te boo demee fi ñu demoon ci maternité boobu. nga gis pajaas yi nit ñi doon tëdd. nga imaginer yow si ta femme ta propre femme moo doon accoucher ci lal yi yow lan ngay sentir bu fekkee fekkontoon ta propre femme. moom mooy nekk ci lal yi ñii am ay moyens yu limité yi tiim ko mu war a am doom lan ngay sentir nga xam ni kon ñooñu mérité nañu ñu dimbali leen seen foofu nga xam ni si ndax mën na faa dëkk mm-hmm. yalta mën na faa dëkk jaan mën na faa dëkk boo ne ci pajaas daa mel ni ñaxum xat lañu ko lañu ko lañu ko bon loolu xale yi kaw kaw yi ñoo ko xam ñaxum bopp ak pajaasu ñaxum mbo mboobu salguf ak ndange ak xobi xat du bokk mm-hmm. day mel ni dal la cest à doo xam ba xam ban ñax la ñu def koy pajaas bi ñaw ñu ko ñaw mat la cest à benn situation boo xamante ne bii et puis opération commando ba ñu fa def cest à lu ni këtt lu ni jonn moo koy faj ñëw xoos ko léegi xoll ko léegi rax ko léegi peinture ko léegi yeesalaat dafa màggetoon lépp jox leen am ay jumtukaay yu ñu jàppandikoo ana jigéen buy am doom nu ñu koy assister ci ay sondeel yu ñuy tàll yooyu non seulement dafa baax ci homme politique muy def yu mel noonu. mais day wane ni séddoo nga ak askanu souffrance bi ñuy dund te loolu dafay génn ci kilifa yi jiite ñu xam ne doxaluñu. mais côté yooyu am na ay préfet yu fa nekk am na ay maire yu fa nekk. mais bari na ay dëkk yoo xam boo fa demee ñu ngi dund même waa dëkk boobu lañuy dund askan bi dañu sonn ci wàllu faju dañu sonn ci wàllu xiif en tout cas jéego la démarche la boo xam ne man maa ngi ci woo bépp parti politique. yàgg naa koy wax fii naan seen réunion bureau politique yi amatul gisoo parti politique buy dénoncer kaw gi ni ñu leen di exploiter ci wàllu suuf si ci wàllu tool yi seen mbay mi ni mu bone wàllu volde de bétail élevage gi nga xam ne doxul tiraillement yi am ci diggante baykat yi ak sàmmkat yi daay yi di am mais yooyu la ñu soxla politiciens yi mhm. mais politique boo xam ne manifestation sànni xeer dóor saaga bu kenn jàngatee nga ñëw ci teelem tontu ko yooyu dañ ci sonn gis nga ñun amul benn politique bu fees bu tu nit mhm. l' essentiel mooy ku fi nekkal askan ñu ni wiiw ku def lu bokkut ak askan yi di teg diile ka carte ka bëdoot daañu xoolal wax nañ wax naa ne xat yi journaliste bu normal yi ci fi Sénégal toll mhm. du wut a nekk député mais dafay def boppam député bi fatt député yi al l' assemblée nationale gis nga bépp député bu ñu fal ci sa diiwaan te amuloo sa diiwaan njëriñ man dinaa la dénoncé ba ñëpp xam ne amaloo sa diiwaan njëriñ te loolu la ñuy xaar politique yi nañu dem bokk ak askan wi coono bi askan wi dund parce que askan wi ñuy souffrir. Fatou Abdou mu mel ni kon euh, boobu ba léegi gis nañu njiital mouvement gëm sa bopp mi ngi gën di démarqué wu ci système politique bi nga xam ne mën nañu tàmmoon euh, di gis ci suy ci waay politique yi. waaw une autre façon de faire de la politique je pense que loolu la ñuy xaar ci leader politique la acte boo xam ne acte bu noble la acte boo xam ne dañu ko war a saluer euh, mu jóge ci Bougane mu jóge ci Mansour mu jóge ci ku mënti doon rawatina moom mu indi peut-être une autre façon wax nga ko indi leneen jëm ci ci ne gëm sa bopp mais également indi ne dañuy fexe séddoo ak askan wi coono coono si askan wi nday xat boo nekkee ndakaaru doo ko xam boo génnee Dakar dëggantaan jamono ji nga xam ne ñu ngi wax nawet ci ngay xam liy coono askanu Sénégal jamono ji nga xam ne am na ay gox yoo xamante ne dañu am jafe-jafe fu ci mel ne Përi Njaay ngir jot seen ay jiw ba ñu koy jàmbat fu nekk te amaana amuñu rajo wala tele bu ñu jotee pour wax ko fa ndax du fa yegg nga aw ci yoon yegg fa jafe-jafe la foo mel ne tëmb gay gii nga xamante ne tey maternité bi moo la mag moom a mag 82. daanaka ka nga xam ne moo fa judd woon ci at ba nga xam ne ña ngay taxawal maternité bi kooku tey yaakaar naa ne mën naa sax bu amee moyens yi tabaxal fa maternité boobu ndax jege na ñeent fukki at bi maternité boobu amoo maternité boo xamante ne bu ñu waxee tëmb gay Kébémer nga xam ne soriwul fi nga xam ne moom mooy capitalu Sénégal ci Ndakaaru mu leer ne am na ay autorités yoo xam ne ñu ngi fa autorités yi bu ñu soxlaa dañuy taal seeni oto yu baax def ci essence climatisé ko dem taxawu leen ne leen yëkkati leen seeni loxo ñu tàccu leen ànd ak ñoom te amaana bu fa jigéen dee mucc boo moytu mu ñàkk bakkanam mm. te noonu ñu koy dundee tëmbgay noonu la ko yeneen localité gox ak goxaat di ko dundee nga dem ci dëkk bu ci mel ne Cilmaxa dem Pekes dem entre autres nga gis ne dañu am sax problème d'infrastructure waxuma mu muccukaay ci koo xamante ne da nga li ko yokk dana dul ñuy jóge bit ñi nga xam ne mooy ci biir région yi di ñëw ci Ndakaaru ndax foofu la ñu xalaat pour faj seeni i pathologie moom moo gën a yokk problème bi kon li nga xam ne def na ko acte bu baax la acte boo xam ne way politique yi également nañu ciy sóoraale askan wi taxaw wax dëgg la dénonciation dëgg la jàmbatu askan wi dëgg la parce que di ko wax askan wi di ko yëg di xam ne am na ku leen taxawal sa important mais soo amee li nga am mu tuuti mu néew wanal waa askan wi ne ma am kat jàppale naa ko ci moyen muy moto pompe muy tey nga yóbbu fa matériel ci gox yóbbu fa li nga xam ne mooy forage yóbbu machine ngir jigéen ñi lépp loo xamante ne dañ koy defaree gerte ngir diw am na solo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci biir dëkk yi nga xam ne dañu sori Ndakaaru ñoo daal di wax ci wàllu politique ak président Macky Sall nga xam ne boobu léegi nit ñi ñi ngi yëy yàbbi ci li mu yéex a fal jëw jëwriñam bu njëkk muy mbir moo xamante ne nag waruñu koo daal di sorxo sorxo bu ñu sukkandikoo ah, ci professeur Moussa Diaw di jàngalekat ah, ci lu jëm ci wàllu science politique foofee ci université Gaston Berger bu Saint-Louis moom jàpp na ni njiitu réew mi nag ña war a former gouvernement am ak ka koy jiite ah, mu tànn leen tànnin wu sew dañ ko ci teewlu loolu moom professeur Moussa Diaw maternité bu poste de santé bu village bi di Tëbb Mbay daal dinañu ko yeesalaat Tëbb Mbay. suñu président bi euh, dafa jël temps parce que élection yi ñu génn di élection législative yi euh, citoyen yi exprimé woon nañ ci donc loolu il faut que mu décrypter ko il faut que mu xalaat ci il faut que mu mu saytu ko en fonction donc euh, analyse yu mu ci def yi ci la war a daal di nommer premier ministre premier ministre ba nga xam ne nag dafa war a nekk nit ku nga xam ni ku mën a waxtaan la lu war doon ku a négocier. ku am sens responsabilité ka nga xam ni aussi dafay man a déggu euh, déglu euh, et puis mën a diriger équipe mu am ñu am efficacité mais yaakaar ni rek loolu nag yombul fi ñu toll temps bi dafa gàtt te aussi pour mu tabb ku nga xam ni mën na diriger équipe boobu par rapport résultat yi kooku yombul et puis aussi mu def gouvernement bu resserré donc loolu yëpp dafa lay laaj temps loolu yëpp dafay laaj xalaat euh, et puis seet ñan lay mën a sélectionner équipe bu nga xam ni du